daanaka comme ni mu ko xamlee ànd ànd bu neex mu dem kër xale bu jigéen bi di ñaan ko ngir ñu may ko soxna noonee waaye juru xale bu jigéen bi ne duñu ci dal ne duñ ko ko may ci noonu rek ñu daal di bàyyante def na ñetti weer ci ginnaaw xale bu jigéen bi nag am keneen ku ko takk keneen koo kii ko takk loolu neexul waa ji gannaaw neexul waa ji nag waa ji dal daal di jël ay photo yi nga xamante ne ay photo obscène la ak ay vidéo ak ay audio daal di koy transféré waa ji bi mu ko defee nag waa ji mbir mi neexu ko waa ji yóbbu xale bu góor bi ak li mu def yépp daal di koy yóbbu ca sage village yi ngir ñu wax ak moom gannaaw bi ñu waxee ak moom nag loolu taxut xale bu góor bi arrêté moom nag mi ngi daal di persister ci li muy def bés bu yàlla sàkk rek bu xëyee daal di yónnee ay vidéo ak ay audio obscène ki nga xamante ne moo di njëkkëru ndaw si loolu nag jëkkëru ndaw si maar ci daal di koy daal di porter plainte bi mu ko porter plainte gannaaw bi ñu ko jëlsee nag yóbbu ko ngir laaj ko lu tax muy wax def noonu dafa ne loolu dil la rek diggante mag xale bu jigéen bi nee na xale bu jigéen bee ko ko sant naam sax xamle na ni xale bu jigéen bi photo yi muy yónnee yépp moom ci boppam moo ko jël ci potoom ci téléphone am daal di ko koy yónnee ngir mu yónnee ko jëkkëram ndax moom ak xale bu jigéen bi dañoo bëggante ba tey ci noonee nag mbir yi daal di dégénéré moom ñu jaadi ko jàpp. biñ ko jàpp ñu ngi ko toppee li nga xamante ne moo di détention ak diffusion d'images obscènes portant atteinte aux bonnes mœurs ci noonee nag lañ ko daal di déféré fële ca parquet bu Louga ajjuma gi ñu génn.